بذاك والإخوان الجميع سعادة الدارين أقل يا سميع taala wa barakaatu mbokk yi xam ngeen ne bés bu mag bii nga xam ne mooy bésu social ramadan nga xam ne boobu ba léegi gannaaw bi ku tedd ki Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér yàgg a wane yoon waneeti yoon naka jekk lépp lu ñu yëkkati moo cay jiitu te mooy sëriñ tubaa moo waxoo nit ne képp ku bëgg a jëriñu dangay xool ci man moo waxoon nit ne moom gindiku na ñu ne ko sëriñ bi dimbaliñu ñu gindi ñu yii muy jëf nag mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu gindiku sëriñ Cheikh Sey bu diplôme sëriñ Cheikh Sey taalibe sëriñ Tuubaa boobu nga xam ne lu si lu Touba ca kanam yëkkati loxo ma nga ci biir ku wedd demal nga yër jaayante yi ñu mujjee génn tey booleeg nag li muy liggéey ci yoon wi ci xam-xam tey dellusiwaat na ci commission sociale indi fi trente tonnes ceeb loolu nag di lu am solo loo xam ne ah du wax ne defoon naa de doy na du wax ne yàgg naa def lu baax de doy na kon dëgg dëgg gindiku jàpp nañ ne Serigne Cheikh Seye mii ko gindiku la moom kon nag commission sociale a lay sant waaye cant gi de yaakaar naa ne am na kàddu yu gën a kawe samay kàddu di sëriñ Mourtada mi moom Serigne Abdoul Fattah mi jiite commission sociale moom la ñuy jox micro bi ah mu santal ñu Serigne Cheikh Sey ak mbokk yi nga xam ne ñoo mel ni moom te jàpp ci commission sociale Serigne Mourtada bismillah eh, li ëppoon ci li ñu waroon a wax lépp Serigne Cheikh wax na ko te kon kaddu yi doonul gërëm. ak kàddu yu cant ak kàddu yu ñaan jëmale ko ci Serigne Cheikh Seye mi nga xam ne jëfatina jëf ju am solo ji eh, na ñoo ko Serigne Cheikh waxee rek ci opération defar yoon yi gisoon ngeen ci ay jëfam lu jiitu loolu itam lépp lu lislaam woote rawatina muy ci yoonu murit gis nañ ci ay jëfam yoo xam ne da koy jëf te ñu bëri sax duñ ko yëg mu doon jëf joo xam ne ni yàlla rek moo tax mu di ko def waaye nag ñu mel nii lu waral ñu eh, mu koy yëkkatee indi ko ci ñun ba mu koy indi kenn yëgut daanaka ñun ak moom ci téléphone sax la daanaka dañ ko lijjantee waaye nag jëf yu mel nii nit ñi dañ ko war a gis ngir ñi bëgg a roy man cee roy ñi nga xam ne dañ cee nekkoon tamit ñu gën cee góorgóor ndax alal mën naa yóbbu borom foo xam ne nii bu dul alal ja mën na faa bañ àgg ndax ku nekk xam ne ne Seydina Ousmane alayhi salaam euh, wax nañ ne ci xaswatu Tabuk jëf na ci jëf joo xam ne nii yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa mujjoon wax ne Ousmane dara mënatu ko wàññi dara ba sëñ Tuubaa boo demee ci raaya baatan nabiyu ila fajjin yaroomu yaroomu loxoo ridan min allahi sa tafdiru kubbaaru wa fii xaala nabi sab usmaanu yasmahu fii sabhiina alfan wa kullun xaqoo naaru yonente bi fanaa nee naa jaamu yàlla di ñaanal Ousmane ba fajar te loolu lépp li ko waral mooy alal ju bëri ju ju islaam soxla mu def ko ci wax nañ ne tamit yowmal xiyaam yonent eh, Seydina Ousmane dana ram juróom-ñaar fukki junni ñoo xam ne ku ci nekk waroon ngaa dem eh, ca safaan ba muy sawara te loolu lépp la ko may mooy alalam bi mu jël def ko ci yoonu yàlla kon nag ñu mel ne sëriñ Cheikh Seye ñii di jëf seen alal ci lislaam di ko def ci yoonu rek jullit yëpp ñoo leen war a ñaanal ndax buñ buñ bu ñu gënee yokk jullit yi yokk doomu adama yi yokk bu ñu gënee yokk tamit yoon wi gën a yokk xëy na yoon wi moom boromam def boromam def na lépp sax waaye ci waxin lii saayir si mën nañ ci yokk lu bari kon nag ñu ngi sant ci jëf ji mu doon jëf ju ñun di ñaan suñu borom gën a yokk xewal gën koo sàmm ba lim yéene ci yoon bi yëpp mën koo àggale ci barke Cheikhna Cheikh Ahmadul Khadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisaka wal ixwaan jami saadata daarayni aqal ya sami